dafa def euh, direct la def te yaakaarum man yi dañ leen a fay yaakaarum ma ko Sonko musul am direct transversal mais quand même ñu ngi leen di accuser benn couverture tendancieuse oh oh y' a amu fi ils son là sur le terrain ils ont fait des recoupement dem ba permanence su APR laaj ay responsable ñi nangoo wax ñi nanguwuñ wax mais France 24 lan la mën def la mën parce que vidéo bi ñu wax ne montage la mën nañu wax ne daanaka France 24 lim ci joué amul beneen média bu ko ci def. non dama ne couverture tendancieuse amu fi. fallait même pas sortir un communiqué fale même pas sortir un communiqué pour pointer du doigt France 24 France 24 mais en fait lan la def man xaw ma lal la def lan lañ def lan ñoom lan moo tax ñu bàyyi ba tey sax doo génne un communiqué mais ñoom ñoom. li France 24 wax ci video un million yi loolu moo leen naqari loolu moo leen naqari mais du couverture 2 juin bi déedéet ah on est resté un mois di waaw moo tax génne communiqué bi. Euh, mooy post bi France 24 def ci ci vidéo boobu. non ñoom texte biñ ci def ne en moins de 24 heures. yaa yi un million de vues te ñoom mënuñu koo am amuñu sax ay nombre d'abonnés yu toll noonu mm. yaa ngi dégg loolu moo tax ñu génn di ruer dans les brancards. loolu kese la du leneen mais ci suñu jargon OS c'est un bon produit ku neex a jaay la ci wàllu information maanaam boo ko dugalee les gens vont ruer vers lui regarder écouter commenter analyser en parler loolu kese la ñoom buñ ñu ko amoon mais dañuy tàccu di en couverture tendancieuse ban couverture tendancieuse ñoom ñoo jël video amateur wane ko ne gis nañ koo xamante ne bii il est armé ba par ba pare arme de guerre la yor. Mhm. kooku beneen degré ci armement la waxul arme de chasse de arme de guerre. Mhm. beneen degré la beneen niveau la mais ñoom bu doon dañoo wëlbatiku pour weddi France 24 ne jàpp nañ leen ñii arm bi fii la jógee parce que arme boo gis c'est matriculer ni oto amee matriculation ni carte d'identité amee numéro mhm. yaa ngi dégg et cetera mais ñoom bu ñu defoon loolu kon France 24 du wëlbatiku du wëri fan la dëgg gi ñoom ñoo war a poser waaye question mais pas génne ay communiqué France 24 nangam nangam de toute façon loolu moom ça ne fait ni chaud ni froid à France 24 c'est de la température normale 36 degrés on avance loolu sëñ bi war woon sax nekk débat ñoom ñoo continuer encore une fois di gonfler Ousmane Sonko tey boo génnee communiqué tudd Sonko tudd ko ni gouvernement sëñ bi du saraxe ay encre comme ko ci àll bi non non non gouvernement waxam bi. new ma wax mais buy wax en fait na fekk mu jar ko quoi. mais un million de vues tant que génn def communiqué mer un communiqué nerveux point de vue waa France 24 lu ci yoon France est ce que aussi. mën nañu mën nañu jëlee wax ñu ci un million de vues kese est ce que du traitement ñu mu leen jàppee un traitement tendancieux. tax ñu def un communiqué contrairement ak li nga wax léegi. muy parce que Ousmane Sonko am na un million de vues. France non y' a aucun traitement tendancieux. ñoom France 24 defal na leen 43 minutes Macky Sall bi muy wax 43 minutes. su ma jubalee ma ne buñ waa léegi France 24 maa bëgg defar Ousmane Sonko direct xanaa kon dañuy nangu accréditation bi ñu leen jox par le canal du ministère des affaires étrangères non nañ bàyyi yooyu quoi yooyu moom wax dëgg neex yàlla. <laughs> non ça ne grandit pas notre notre pays quoi nekk fii di dàggasante ak ay médias te ñoom sax ñoom tudduñu leen ñoom Ousmane Sonko lañ tuddi tudduñu ko leen mm-hmm. ñoom après ñoom ñu dugg laaxaale ko ci laaxaale ci te Ousmane Sonko record mi boite sax weesu na président même le président Macron. jafe na mu am loolu ci France 24. Euh, euh, présidentielle yu 2024 ba tey ci perspective yi euh, bu dee ci côté Pastef li ñu dégg rek mooy Ousmane Sonko mooy seen benn candidat mooy seen plan A mooy seen plan B. Hmm. amuñu plan B te ñu gis ne Ousmane Sonko mu ngi ci ay jafe-jafe digganteem ak yoon. yoo xam ne à tout moment peut-être su fekkente ne jamono bi la amagul benn décision bu définitive bu ko génnee ci ci course bi waaye ca kanam mën naa ne ndax affaire diffamation Mame Mbaye Niang cassation moo ci des te mu mel ni ay avocat am joué ci temps bi waaye mbir ma dugg na euh, ban euh, mbir nga jàpp wala ban voie te ne la Pastef mën a gérer cette situation euh, ba génn ci sans un plan B ñu fexe ba Ousmane sonk candidature am jàll mu mën a bokk ci présidentielle candidature am amul lu ko entravé wax naa la ko fii waxaat la ko fii dimanche suba bu élection amoon day bokk man gisuma entrave gisuma ko. mais sëñ Mansour yi du du. mais préparation fii léegi 2024. préparation psychologique la gars yi di def. au nom de quoi ñun ñu war a nekk benn caisse de résonance ñun journaliste yi man lu sama yoon ci benn waa la ñuy wax ak waaye man sama yoon nekkul ci loolu man. candidature OS bu suba amoon élection suba. suba mais su amee entrave dans l'avenir on parle de démocratie on parle de la stabilité du pays mhm. man du nangoo nekk quête de résonance su kenn te yow nga bëgg a écarter Sonko nga ne léegi na ma ko sëñ Mansour waxal loolu du dëgg du yoon au nom de quoi non loolu du yoon man gisuma beneen plan parce que ñoom dañoo dem ba seen mandat jeex ñuy ut seen plan A yeneen parti aussi tamit di ut seen plan A au nom de quoi ñun ñu bëgg ñu gëm loolu ñun dañoo war a wax plan B waxuma ko. man je ne parle pas de plan B nañu bàyyi nit ñi dem élection sama yoon non man sama yoon nekku ci plan B de nañ bàyyi nit ñi dem élection loolu mooy dëgg sinon gis nga a sonn que du am légitimité une boo xam ne 30 pour cent de taux de participation tey c'est pas envisageable Sonko boo ko écarté ci Sonko président boobu du ko mën ci Sonko gisuma plan B gisuma beneen plan bu dul plan A OS mu dem election ak ay moroomam gis nga OS bu demul élection. fii lay nekk di wax ne parce que je suis popu euh, c'est parce que euh, maa ëpp légitimité je suis populaire ñu xam ko loolu moo tax dewuma élection mais tey jii bu demoon gañewul mais du reconsidérer envers ses positions mais loolu moo gën a nekk yoon du man nag bu ma kenn laaj plan B gisuma ko. te bu bu bu su demul mën na mën na impacter ci légitimité ki nga xam dama ne loolu yëfi tappale la journaliste da ngay am courage taxaw wax loo xam ne du dëgg nga lii du dëgg du yoon ñun ñuy nangoo di wax naan ay ay Bassirou Diomaye Faye ay ay ay ay ay ay kii ay Birame Souleye Diop journaliste bu ci bëgg jàmm man bu ma ko laaj parce que du dëgg du yoon loolu du yoon c'est pas normal par force ñoom bu ñu nekkee seeni officine ne tel candidat te wala telle personne dañ koy liquider nañu fexe presse bi di ko wax su ko defee presse bi di ko wax di ko wax mu nekk benn genre bashing dañuy dem ba opinion bi dañ koy euh, daal di kii adopté adopté ko surtout au moment au moment où. fële ci benn bokk yaakaar mosuñu wax loolu li nga xam ne. sa waay man gisuma plan B boo amee beneen laaj nga wax ko man aw ma plan président Macky Sall du du du dem 2024 euh, mais gisuñu benn préparation ci koo xam ne mën nañu ko duppee ab dauphin am que muy ci benn bokk yaakaar wala muy ci alliance pour la république ban choix nga gis un choix idéal euh, pour mu remplacer ki nga xam ne moo di président Macky Sall ca ca ca seen langue. non choix bi moom Macky Sall def na ko ba pare mais semaine hmm. ma mais choix bi moom Macky acté na ko ba noppi c'est déjà acté def na choix ba pare na mu defee woon ci troisième mandat bi dalal gars yi deux jours après mun leen saay bokkuma mais choix bi moom def na ko ba pare moom wax dëgg na yàlla léegi nag di gis ñoo xamante ne dañu bëgg a bokk ci système bi ñuy candidat candidat la un Moustapha Diop Macky Sall du ko choisir c'est ça la vérité Abdoulaye Diouf Sarr Macky Sall du ko choisir c'est ça la le national c'est pas possible <coughs> mais ça c'est pas possible sax yow loolu xam nga ko xam nga ko ah léegi nag ñi nga xamante ne moom bëgg nañu bokk ci système bi kon ni di dund moo dañuy candidat candidat lu bu ñu candidat candidat loo am dara deuxième tour bu amee sa dépendra en fait des configurations ñu mën a buruxlu dem négocier PS gars yi dañu foogoon ne Macky bu neen je ne suis pas candidat dañuy génn finalement ñu ngi sàll dara dañuy xaar dañuy négocier ak Macky Sall bu ñu négocier loo xamante ne kiiwul ñu jàpp ne tey Parce que la filière, la filière PS, la filière électorale du PS, je pense c'est 800 000. C'est 800 000 électeurs. Mm -hmm. C'est pas 800 000 fois, 800 000 électeurs. dina am ñu voté mais 800 000 yi moom su ma juumalee wóor na ma ta loolu mooy li Sonko amoon am 15 pour cent presque mooy li Macky Sall amoon am euh, euh, kii 25 euh, pour cent je pense bien yaa ngi dégg. ah donc PS day négocier ci ak Macky Sall AFP c'est sûr que Macky la ñuy déglu parce que Moustapha Niass. désigné gul kenn ñaar ñi nekk ci biir ni ñi jàppoon ne da leen di kii ñooñu amatul seen con ñooñu amatuñu confiance Moustapha Niass du docteur Alioune Sarr man maa ko wax du euh, Malick parce que loolu bu amul mu leen moo tax kenn ki génn na far yàlla damal boo xam yaa ngi dégg donc bennoo ni gars yi jàpp ne day dem tas day dem à l'implosion non non ça dépendra du profil du président di choisir yaa ngi dégg léegi nag bu choisir ce profil là dina am ñoo xamante ne dañuy génn parce que dañoo mer am na ñoo xam ne dañuy génn parce que dañoo bëgg continuer di dund et dañoo bëgg euh, euh, bokk ci réew mi après 2024 ñooñu dañuy candidat candidat lu rek mais ñoom xam nañ ni juróomi duñ leen jox carte. yaa ngi dégg seen seen Mansour may ñu. voilà may ñu may ñu exclusif. non non loolu moom bu président Macky Sall. Ah. Euh, en 2024. yàlla xam na ne xam naa. et le choix est déjà fait. waaye Macky Sall choisir ba pare. wax na leen ko keroog nee na leen affaire bu nekk affaire état daam de ndax mbiru état wax na leen ko Macky Sall ah xoolal Macky Sall xoolal mais nit ñi ñoo dul xool kii mais Macky boo xoolee fan yi indicateurs yi muy joxe war a xam ni il a déjà fait son choix yow tamit nag on est à moins de euh, quarante jours pour ne pas dire presque quarante jours pour aller vers le les les les les les parrainages président yow tamit nag bu choisirul euh, son son son son son son dafay ba pare dafa am na trente pour cent longueur d'avance il est à 30 pour cent en avance sur les autres candidats parce que prime de de de nan laa ko waxee léegi prime de. sortant waaw prime au sortant bi. li la koy mën naa ne c'est scientifique parce que Wade prime au sortant am 34 pour cent la woon au premier tour deuxième tour presque jógul Abdou Diouf moo amoon 41 44 pour cent donc Macky moo tax gis nga opposition bi ñi bokkul Pastef te seen yoon nekku ci nañ bàyyi Macky Sall te ay électeurs nañ bindi programme. bu jaree ñu génn dëkk bi wax ci seen bopp moo gën ñuy wax fi bañ leen di jàpp amul sens Macky il est en avance au moins de 30 pour cent sure eux loolu kenn mënu ci dara parce que même la c'est-à-dire Macky Sall sans Benno son coefficient personnel c'est 26 pour cent te loolu mooy bi muy dugg. ak euh, boole ci ak benn loolu mooy bi muy dugg def na fi 12 ans au moins am na bilan mhm. boo xam ne matériel ça lui est favorable. tey rek am na lu muy inauguré. Mhm. Euh, sur le sur le terre fële ah Rufisque xaw ma Rufisque xaw ma mooy tronçon kii boobu euh, euh, parti boobu kii waaye dama fàtte appellation bi quoi comprendre nga tey jii am na lu muy. Mhm. loolu yëpp ça milite à sa faveur. donc ku jàpp ne par exemple président day ñëw choisir n'importe qui dangay nax sa bopp ki jàpp ne président bu demoon même Ousmane Sonko wax na Macky Sall bu demoon troisième mandat du am 40 pour cent Sonko 40 pour cent la wax <laughs> donc sëñ bi. Macky va renoncer à son fauteuil mais il n'a pas encore renoncé au pouvoir. day bokkaat ci jeu bi. mais est-ce que choix bi choix bi dina yomb su fekkente ne tey ñu ngi dem yaa wax léegi à moins de deux mois des des parrainages askanu euh, Sénégal quand mais su fekkee le président def na son choix ak ci kam am ñu ko xam mais askan bi. Euh, gisaguñu ku ñu préparé koo xam ne xamal na ko ak askan wi comme. bàyyi xel wutu ko fii est-ce que dina yomb kooku à huit mois wala sept mois des élections présidentielles ñu tànn ko fi ba xamal ko askanu Sénégal mu mën a préparer élection yi. loolu euh, dëgg la parce que président bi mu génne 2008 dem na dëkk bu ñuy wax Mbadianeen ancien premier ministre président de l'Assemblée nationale ministre de l'intérieur hydraulique et cetera et cetera te sa fa ak benn góor bi mu ñëwee dafa présenté wu. et pourtant am na parcours yaa ngi dégg dafa présenté wu et cetera góor gi may ko ndox ne ko boo xoolee sax ndox mu seel mii ma lay may pour ñu jigéen ñi am ko dañuy dox ay kilomètres après président diggoon na leen leen leen defaral forage bon wax na ci livre bi ne defal na leen forage je pense mais info yi ma am na ñu ne ma bon deful bon loolu c'est euh, juste une petite digression. Mhm. juste pour te dire que ni c'est pas parce que tu as occupé autant de fonctions que Sénégal le Sénégal des ah dañ lay xam. dañ lay xam mais gis nga euh, un président sortant maanaam dina xam dëkk bi xam dëkk bi boo xamante ne bii wax na leen ko keroog nee bu ngeen ma toppee on va dina xam dëkk bi xam koo xamante ne bii xam na fan la foor xam na fan la faible 2019 bi ñuy yéeg j'étais pas fort at Tivaouane loolu moo tax ñu jël Diagne Sy Mbengue bàyyi ko foofu ne ko leen politique foofu Diagne Sy Mbengue musu def politique alors que Mbaye Ndiaye ancien ministre de l'Intérieur il voulait que Diagne Sy soit le gouver euh, un gouverneur dans une des régions dañ ko waxoon sax tànnal fa la neex parce que amoon na ay affaire yu taxoon mu wax loolu mais bon loolu histoire bu xaw a gudd la. comprendre donc président xam gi mu xam dëkk bi mën na ko permettre ci ay schéma yoo xamante ne candidat bi muy choisir bu ko jaarloo foofu du ko réccu schéma yooyu nag ñoom seen schéma la wax dëgg na yàlla seen la yoo xamante ne dina ko permettre mu dem foofu joxe ay loxo créer ay liens consolider ay liens ba pare am na ci liens yoo xamante ne du fait. du bilan du président sortant yooyu bu ñëwee dafay def réchauffer rek daf koy tàngalaat rek. jàll dem yoonam on l'habitude de dire que une élection présidentielle c'est c'est une rencontre entre un homme et son peuple. Ouais, si bu dee le président Macky am na bilan am na jaar-jaara mais moom quand même du nekk candidat le candidat sera euh, une autre personne. bu bu Macky Sall nekkee directeur de campagne nag te nekkoon ko te léegi li gën a renforcé wu sur le plan politique. boobu bu Macky Sall nekkee directeur de campagne tey wala mu jël bu ñu doon def ko directeur de campagne nekk moom superviseur.